jërë ngeen jëf Alioune Sall ak Abdoulaye Wade ñoo nga jëm ca yoon observateur tax nañu Alioune Sall rakki Macky Sall moo jëmee Abdoulaye Wade ca yoon ndax nee na wax gudd gàtt moo di Abdoulaye Wade da koo sosal Abdoulaye Wade ak kaddu yi woon keroog àjjuma ci seen meeting le ne Macky Sall day di ko bokkal rakk ja a kaay bi nañu suba ci talaata ji lay yónnee a tiiñal wax ja bu ca delluwul yoon la ñu jëm ba tey observateur tax nañu ñuy yàgg ci pax Parti démocratique Sénégal def fa lu ne démb fekk leen fa nee nañu Abdoulaye Wade déconné nga ndax li nga wax daa ëpp Wade nag la mu leen tontu moo di ab xeex la rek ab xeex na bu jibee bu la kenn jiitu ci gàtt sa gàtt sa yéen a kaay bi dañu lee Abdoulaye Wade tontu ay gaayam Moustapha Niass ak i gaayam di waa AFP observateur nañu li ñu wax moo di Abdoulaye Wade yanonoy dàllam te ci yéeyi sagaram la jëm jamono ji moom Abdoulaye Wade day juum ci jamono ko day juum ci am réew laa si ne kay nañu waxam jawoon keroog ci obélisque ci seen meeting ba moom Abdoulaye Wade weex na ko xat ak lu ko ci mën di dugal jaru ko woon ne amul lu ko gaay mbay lu ne yàkk nañu ko ko Abdou Ndéné Sall mi jiite réseau ferroviaire bi ne ñu ci biir las yéenekaay yëf yi sax dafa ñaaw ci koo xam ne mos nga doon jiite réewum Sénégal ngay doxalee nii mel ne gone Moustapha Cissé Lo ci populaire moom yàq ko fenn la mu wax moo di Abdoulaye Wade na yem bala ñu koy yemale fi nekk ni li waroon moo di ñu woolu ko laaj ko déglu ko li mu wax bu ci dellul gannaaw ñu jël ko dugal ko ci kaso bi Moustapha Cissé nañu ci populaire Cameroun bi dawe woon Cameroun toog Sénégal ba far ñu sul ko ci armée yu yof ya Moustapha Cissé Lo nañ Abdoulaye topp na tànki ngóor soosee Cissé Lo yamu ca ndax teg na ñetti laaj ci taabal ci bu ca nekk mu koy laaj Abdoulaye Wade benn moo di ku rey maître Babacar Seye beneen bi moo di lu tax ñu rey Khadim Boussa ba ca topp di kan moo faat Mamadou Diop Moustapha Cissé Lo lii la bëgg Abdoulaye Wade tontu ko ci doom ja Karim Wade observateur nañu tas na parti démocratique Sénégal ndax na ñoo xamante ne ji ànd nañu ak moom am na ne ji moom bëgguñu koo gis le ko naan ñu Babacar ñooñee ne Babacar Gaye mi amee kàddu parti démocratique Sénégal nee atum bu sañoon Karim Wade la ñuy wooteel bi ñoo waroon muus amuk mat akuk ñaw convoqué extraordinaire investir ko 2017 info xëy dikk ak ñun ci bàyyam Abdoulaye Wade mi toj place obélisque keroog ajuma yéen bi xëy xamal ana lan moo tax nguur gi ba ñu jugee ci meeting ba ba ci ëllëg sa ñoom ñëpp ñu tiit ku ci nekk ci ñoom mel ni ku jëfur fu ne ñoo aw fa di jébaane Abdoulaye doom ja yéen a bi nañu marché yi ñu ko jox mu jëm ci peese oto yu mag yi ñu naan ko marché pour le contrôle à l'essieu yëf yàgg nañu ko doxalee ak njublang lay xeeñ ndax société bii di Afrique Passage SA te Pedro Diouf moom ko li ñu seetlu moo di jox nañu ko marché bi ba bindal ko contrat te ñaari wet ginnaaw bi ci la société bay soog a taxaw ma taxaw ci sunu lamb ak xibaar yu neex amateur yi doore ko sëll bu ndaw di Ama Baldé mi dina bëral combat bu nar a taxaw di diggante bombardier be 52 mbëru mbóor bi mooy le roi des arènes ak Modou xarañ loo yéenekaay bi dañu suba ci talaata ji ku sàgganul Bombardier dina signé ab fetalante moon ci diwaanu Touba Mbàkke bi la observateur Serigne Saliou Mbàkke moom Serigne Bara ak waa ji di Idika mi président bu regroupement des chauffeurs de Touba yéenekaay bi dañu ñoo doon jàppante ba fetal ndax président regroupement chauffeurs yu Touba di Idika ñoo ne oto yëpp ca garage ba la ñu yabe Saliou Mbàkke moom Serigne Bara moom amee bus ne busam du yabe ci biir garage bi yéenekaay bi dañu biccoog mbaaloo am ca wax ju ñaaw topp ca ay saagante jib ca ku ca nekk ci ñoom ñaar mu di Saliou Mbàkke ak Idika génne fetal nga gendarmerie moo ci mujj joox ñoom ñaar ñëpp commandant bi da leen a yóbbu gannaaw bi ca la leen bàyyi observateur nañu tey ji la ñuy janoo ak procureur ba fetalante ba woon ca Touba ci diggante Serigne Saliou Mbacké moom Serigne Bara ak Idika mi président regroupement des chauffeurs de Touba la ci enquête yéen a gis moo di Far West ca Touba maanaam dëkk baa faroon soppaliku doon dëkkub kaboy